seet si borom xam-xam yaakaar naa dootu ñu leen ko présenté di Cheikh Baye euh, Diankha borom seetu askan wi mbokk yi duñ ci sori dañ koy daal jox kàddu mu daal di nuyoo Cheikh Baye Diankha asalaamaaleykum. salaam wa rahmatullahi taala sëñ Mountakha ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu àddina bi yëpp di nuyu sénégalais yëpp sénégalais yi fu waaye mën a nekk sopp soppe taalibe yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci kër gi bismillah jërëjëf Cheikh Baye Diankha borom seetu askan wi ñu dellu si waat nag ki waxtaan ndax saa su ne itam bu ñu ñëwee bunt bi ñuy ubbee rek muy wàllum consultation bu ñu koy wax ci waxin muy wàllum listixaar euh, di wàllum seet euh, mu nekk loo xamante ni Cheikh baay jànqa euh, nee nga li nga ko waxee démb ak barki déng nee nga say jotaay doo ci dugg mukk mukk mukk te jàlloo ci wàll wi ndax amaana nekk nañ loo xamante ni ñu ci bëri bari tey bu ñu daanoo mbir mi daaneel na leen mooy ñàkk xool mbiru doomu aadama bi balaa ñu cee dugg. alhamdulilah. Euh, mbiru consultation damay faral di wax ne nit ki amul benn mbir moo xam ne nit dafa daf ci war a dugg lu dul ne dafa war a jiital consultation ba pare nit dana jóg tukki xoolul ay mbiram fekk yoon bi baaxul nit dana tabax kër xoolu ko fekk kër gi baaxul nit dana jënd pàkk fekk xoolu ko fekk pàkk bi baaxul mm-hmm. nit dana jënd ndaamaar kazalika fekk baaxul kun mbir yëpp dañ ko war di xool mm-hmm. nit ñi dañ xoolal seeni mbir nit ñi nañuy seetlu nit ñi nañuy seetlu loolu maa ngi koy laajee biir képp kuy sénégalais mm-hmm. moo xam góor nga moo xam jigéen nga seet dafa nekk mbir mi nga xam ne sëñ bi dañ ko war a jiital ci lu nekk boo feebaree dem hôpital tey bala ñu laa faj consultation la ñuy njëkk def ku ni mu amee ci zahir noonu la amee ci baatin nañuy xool suñu mbir mm-hmm. buñ fi bëggee yàgg réew mi doy na waar de toll na foo xam ne réew mi dafa doy waar na nit ñi di seetlu bu baax di xool seen avenir xool ñi nekk ci seen kaw mm-hmm. tey amul tey kenn kuy dox koo xam ne amoo ay noon yu nekk sa kaw parce que tey dëkk bi dafa doy waar tey liggéey bi bëri na liggéeyante bi bëri na xaxante bi bëri na doy waar trop moo tax nañuy xool seet nag ñun yàlla daf ñu see dimbale jox ñu si xam-xam boo xam ne xam-xam bu doy waar la xam-xam bu yéeme est-ce que xam nga ne sëñ Muntaxa man nit dana jàkkaarloog man rek ma xool la wax la li nekk ci yow au lieu que ma lay nekk di tombal di la defal dara loolu baatin la boo xam ne yàlla def na ko ci man waaye alhamdulilah doyloo naa li nga xam ne mooy ramli képp koo xam ne dag maa pour bëgg ñu seetal la wala nga wax ma sa soxla mhm. bala ma laa defal dara dama lay consulter tomb sa mbir wax la li nga xam ne mooy sa zaahir wax la li nga xam ne mooy sa baatin génneeloo la sarax te bu ñu la génnee la sarax nga am solution incha allah Cheikh Baye jànq ci bunt boobu rek dangay dégg ñoo xam ne dañ naan la man neexumaa gis samay mbir wala sax amaana dinañ dem euh, ki nga xamante ni mu ngi leen di ñaanal ci wàllum asraar dinañ li ko xool ne ko sa mbir dafa lëndëm fu dem ñu ne ko dafa lëndëm euh, ñooñu est-ce que bokk ñu ñooy ñi tax ñi naan ñoom neexuñoo gis ndax yow euh, loolu d'accord nga ko am na ñoo xam dañuy taxaw di dëggal seen bopp nañ ñoom seen i mbir neexuñu neexuñoo gis waaw loolu mystique dëgg moo koy maye mystique dëgg dëgg dëgg dëgg dana dem ba yegg foo xam ne nii ci mystique tey boo xëyoon pour bëgg koo sànni kortu yow sa korte day mooy oh. doo gis ki nga jóg pour sànni ko korte boo jógee pour euh, sànni ko sayfiyu sayfiyu benn secret la boo xam ne borom kuris yi xam nañ ko moo gën a gaaw ci yàq nit sayfiyu li muy firi ci baatu mooy jaas yi am na secret boo xam ne noonu la gaawee ci dagg nit yàq mbiru nit léegi léegi léegi léegi nit ku doon bëgg a tukki tey boo jugi bëggee jëflante ak moom wallahi lazim du retourné waat sayfu boo ko sànnee du retourné moo tax wàllu xeex mm-hmm. maa ngi ci yor xam-xam yoo xam ne xam-xam yu doy waar la est ce que xam nga ne am na secret yoo xam ne ni ci wàllu xeex tey bu ma ko liggéeyoon ci benn euh, garab gu nekk ci àll bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko muy salaan salaan am na benn secret bu ma ciy liggéey benn galan la bu ma la ko joxoon tey nga am noon boo xam ne danga ko bëgg a génnee këram wallahi laasim gëñ naa ci alxuraan ne li ma ciy liggéey bu ma ko liggéeyee ba pare Cheikh Baye bu may dégg mbir moomu euh, muy xam-xam gu ñuul boobu bu ñuy wax sax xam-xam gu ñuul xaw ma euh, ni ngeen koy waxee Cheikh Baye tey li ngay wax nii tey ku la dégg euh, est-ce que doo jëflante ci wàllum xeex parce que tam lasaraarkat dëgg dëgg dëgg dëgg mbiram du gaaw maanaam du gaaw a jóg du gaaw a tàng am na ñoo xam ne nag boo leen wax bët bi suufan ci sax boo moytu ñu attaqué la wallahi laasim wàllu xeex li ma ci yor ci ay xam dafa doy waar xam-xamu xeex li ma ci yor man moo tax des fois damay wax ak client nga xaw werante man ree dafa may jàpp waaye yàlla daf ma bindee man dama bëri yërmande man yàlla daf ma bindee dama bëri yërmande waaye nag am na ñoo xam ne des fois ñu liggéeyloo ma ko des fois ñu am ñoo xam ne dañ ma koy sant ma liggéeyal leen ko man te duma ci jëlee benn bàkkaar parce que damay xool sart yi nga bëggee ñu liggéeyal la loolu ndax jaadu na wala jaaduwul tey tey imagine toi koo xam ne da nga am sa place ñëw mu fekk la nga nekk sa place muy xëcc yow place bi wala yu demee noonu wala demee ni wàllu miraas yooyu dégg nga nga war a mu leer na yow kër gi sa kër papa la Euh, beneen kër gi sa kër papa la ñaar ñoo fi nekk ñu war a xëcc ñu war a miraas kër gi jaaraluñ ko si yoon yu bëri yu deme noonu dafa bari ñu war ko teg ci yoon teguñ ko si yoon nga bëgg tey ñu dimbali la ba nga mën a jot ci sa kër te fekk tegu na si yoon am na lu may liggéey loo xam ne benn garab gu nekk ci àll bi la damay dagg ba jot reen bi gis nga bu ma jotee reen bi cat be ak beneen côté bi benn bu nekk am na lu ma fay def su mooy koy kii mooy dagg kii bi rek loolu moom incha allah ka nga seqal mbir moom kere la ci gëj a wax xeet yu mel noonu dafa bari am na loo xam ne da ngay gas pax ba mu xóot ba mu xóot nga am loo teg amaat loo teg ci kawam tudd turi kooku kooku moom bu ko yàlla dimbaluwut bu ko yàlla dimbaluwut sax dana ñàkk ba kanam hmm. keroog lay gëj a wax ci yu demee noonu kon wàllu xeex yi ñu ciy liggéey dafa bëri waaye nag nit ñi na nit ñi di consulter seen mbir di xool seen mbir daal. Ah, hmm. jërëjëf Cheikh Baye Diankha ñu ñëw ci wàll bi nga xamante ni rek moo di nopp nopp nekk na loo xam ne tam euh, ñu ci bëri nga koy def waaye anam gañ koy defee taxu koo jaar yoon amaana nee nañ mën nañ ko waaye tam duñ ne mënuñu ko waaye anam gañ koy defee mooy xaw di compliqué nopp dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg am na ñoo xam dañ naan la euh, sëriñ soo xam ne mënu nopp moom bay ba mu dem toog surtout ñaari way dencante tamit ñi nga xam dañu bëgg surtout laay wax ni ma bëgg a ñàkk seen biir euh, néegu sëy parce que lu ci bari bëri divorce yi bëri na Cheikh Baye jànq nopp sëriñ boo xam ne mënoo nopp yow doona goo sëriñ man tuddewuma la sëriñ classé wuma la ci wàllu sëriñ parce que nopp tey moo gën a yomb ci wàllu asrar moo ci gën a yomb parce que tey boo seetloo taalib yi nga xam ne jaar nañ ci daara ji liñ njëkk a mën ci daara ji liñ njëkk a fooyee mooy wàllu nopp kon noom nekk na li nga xam ne moo gën a yomb pël yi nga xam ne seen xam-xam demeewul noonu ci wàllu fas ak reen yi ñuy gën a fooyee mooy wàllu nopp parce que lu tax daf yàgg dafa nekk xam boo xam ne bu fi yàgg la moo tax xam-xamu moom yàlla dimbale na ma ci ma yor ci xam yoo xam ne sëy bu narta baax rek mu ma du dégg sëy bu nar a baax borom dana ma dégg sëy bu naqari ñu bëgg mu la borom dana ma dégg. waaw mais say say yu say yu yu bëri di yëngatu danga koy dégg moo xam biir réew la moo xam biti réew da nga koy dégg danga gis ñoo xam ne dañu doon ànd nekk si jàmm ak salaam waaye léeg nga jékki-jékki ku góor ki tappaas wala nga jékki-jékki ku ki tappaas di ñaan baat et pourtant seen njëlbeen dafa neexoon. waaw man damay faral di wax ne gis nga sëy yëpp lañ war a ñage sëy yëpp damay faral di wax ne sax nit ki balaa dugg ci sëy ci boppam. Mm-hmm. tey nga gis jigéen boo xam ne danga ko bëgg nga bëgg koo takk. balaa nga koo takk tey yow nga war a jug ba pare d'abord parce que tey da leer ne nit ku nekk dafa am rawxaan mm-hmm. yow da nga am rawxaan xale bu jigéen bi dafa am am rawxaan est sa rawxaan xam nga ko est-ce que xam nga bëgg mm-hmm. est-ce que xam nga lim bañ sa nga nar a takk rawxaanam est-ce xam nga lan la bëgg est-ce xam nga lan la bañ kun dafay baax yaw tey nga am borom baatin bu mel ni Cheikh Baye mm-hmm. nga xam ne boo ci bëggee dugg dana dana la boole ak rawxaanu femme boobu ba nga xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg ak lu problème yu métti métti métti métti yéen ñaar moom seen diggante du ci bokk. yaa ngi dégg mhm. féewaloo lu mu bari bari bari tey si jamono bi nga xam ne jigéen ñi tey mhm. xaw ma naka lañ koy xam ne linde mère lañ koy xaw ma ah, yooyu rek lañ bëgg léegi maanaam nang leen takk ñu noos def nangam benn deux mois trois mois ñu ñaan divorce te loolu tey da ngay xool ne ñi gën a doon kilifa tey ci biir dëkk bi mhm. ëpp pouvoir ci biir biir dëkk bi ñoo gën a am problème boobu noonu jigéen bu ñu sëyal trois mois nga nax leen lekk ci ñoom li ngay lekk ci ñoom mhm. génn bàyyi leen fi yaa ngi dégg mhm. yooyu dafa bari waaye ne képp koo xam ne nii da nga nekk ci sëy moo xam góor la wala jigéen la ngeen am problème mhm. nga bëgg ñu régler ko wallahi laasim gëñ naa ci alxuraan ne boo ma déggee danaa ko régler ba sëy bi régler coc benn problème dootu ci am bu fekkee ne danga bëgg a takk jigéen tamit mu jafe ci parents yi moo xam yaay ji la wala baay ji la wala moom xale bi si boppam moo bañ barki alxuraani karim boo ma déggee sëy boobu dana am te xam-xam bu wóor lay wax xam-xam bu wér lay wax man du ma toog di wax loo xam ne nekku si man wallaay mbokk yi bu ñu waxee Cheikh Baye jànq yaakaar naa Diankha Diankha xam nañ leen bu baax di borom seetu askan wi tabarkàlla mbokk yi euh, numéro baa ngi noonu ci baaru écran bi 77 826 33 33 wala beneen bi 78 251 78 78 Cheikh Baye Dianka dafa am ñu nga xam ne dañ ciy ñëw tuuti euh, di euh, dafa am ñoo xamante ni dafa am doomu aadama yoo xam ni euh, dafa mel ni seen i mbir daal maanaam seen yaakaar day tas saa su ne bu ñuy wuti këyit mbirum këyit dafa mel ni daal gàllankoor la ci ñoom léeg-léeg nag nga dégg ñoo xam dañu naan dama bëgg këyit nekk bitim réew. moo xam biir réew dama koy wax saa su ne dañuy boole ñaari ñaari ñaari wàll yi euh, waaye da ngay gis ñoo xam ne ñi nekk bitim da dañ naan dama bëgg papier këyit mais la plupart du ñu dem ñaanlu gi wala départ gu ñu sax pour dem déposer gi pour wàllum këyit ñëw ne la bëgg këyit est-ce que loolu tamit yéen Cheikh Baye Diankha euh, loolu xel nangu na ko toog nit koo xam demagul déposer ñëw ne damaa bëgg papier ñu ne ko dañ koy ñaanal pour mu am papier. gis nga dëkk bi bëggoon na ay kanam yoo xam ne ñu di joxe ay xam-xam yoo xam ne bu ñu xamoon dëgg-dëgg ñi ñu jàkkaarloo ñi ñan di kon problème yu bari dana régler ci biir dëkk bi waaye dañoo am benn problème. Mhm. mooy tey xàmmeetuñ kan mooy borom xam-xam xàmmeetuñ kan mooy sëriñ léegi da ngay gis ku taxaw wax li nga wax ñu jàppee ko ay waxi gone ku taxaw wax rek. Mhm. yaa ngi dégg loolu mooy suñu problème barki alxuraan li ma andi ci ay moodu-moodu yoo xam ne nii ci biir réew mi kenn xamul nuñ toll mu ma ko doon lim du jeex te ñoo ñëpp ci wàllu boobu laa jëflante ak ñoom est xam nga xam nga ne am na ñoo xam ne am nañ fa ay ñaar fukki at yoo xam ni sama loxo bii lañ amee kayit ba tax ñu ñëw Sénégal kun wàllu papier man maa ngi ci sant yàlla yàlla mu ma ci may ay résultats yu baax parce que li tax dama am xam-xam bu wóor xam-xam bu wér ci alxuraan xam-xam bu wér ci tur yàlla yi nga xam ne bu ma neexee dama koy jàpp tur yàlla yaa ngi dégg bu ma neexee ma jox la sunguf nga sangu bu ma neexee ma jox la ci euh, nu mu tudd fas yi nga takk fasal la ki euh, sa avocat wala demee noonu ci jooni jooni bu ma neexee tamit ma jox la alxuraan nga sangu kun dama ci am xam-xam yoo xam ne dul jeex du xaaj du jeex. waaw d'accord Cheikh Baye Dianka ndono la wala da nga ko jàngi jàngi amaana man naam sax boo doon ne wala da ko jàngi wala ndono la. xam-xam damaa juddu fekk ko ndax ci ëttub daara laa juddoo samay maam samay baay yëpp nekk ay sëriñ waaye doyloo ma loolu dama judd ñu jàngal ma ba ma amee juróom at lañ ma dalal alxuraan ma jàng ko mokkal ko teel koo mokkal mm-hmm. jàng xam-xam gorel ko téere yaa ngi nii yemuma ci loolu jàng asraar asraar dañ koy jàng mhm. xam turu yàlla mhm. xam turu yàlla bu wér mhm. ba nga xam ne soxla buñ la wax soxla buñ la wax dafa am benn gone goo xam ne dafa ñëw fan yii ne dama bëgg mooy jàngal ko asraar ma ne ko ndax jotoon ngaa commencé jàng asraar mu ne ma waaw am na lu ma ci xam ma ne ko euh, ma ma ne ko mën ngaa dagg euh, euh, kuntu yu mu ma waaw xasaal ma waaw ma ne ko tey bu la nit waxoon soxla mun taxaa daf la wax soxla ne la dama bëggoon nangam dama bëggoon papier léegi papier boobu noonu mu bëgg boo ko bëggee fajal soxla mhm. si ñetti fan naka nga koy liggéeyee yaa ngi dégg muy nakki nakkal ma ne ko yow ma ne ko asraar mhm. tey bu fekkoon ne eh, muntaxaa dafa ma wax soxla ne ma dama bëgg papier yaa ngi am na benn laaya joo xam ne si alxuraan dafay méngoo soxlaam mhm. laaya jooju nga xisaab ko calculer ko tey d'abord dagg ko dugal ko ci xaatim dafa am na yoon yoo koy dugalee lim bi nga xam ne moo tolloog limu turu muntaxaa ak réew bi mu nekk nga boole ko dagg ko dugal ko ci baytul xaal bi am na foo koy noo koy def laaya ji nga am lim boo ko téye liggéey ko ñetti fan force kii lim bëgg daf koy am kon mbiri xam-xam la dafa am yoon. tabarkalla mhm. Cheikh Baye jànqale ngi dese ci waxtu yaakaar naa euh, baretu ay silmi simili yu néew waaye tey dañuy ñëw ci la wàllum euh, ngóor a dellu si waat mu mel ni euh, bu ñuy gën a dox ci jamono Cheikh Baye jànqa muy gën di bari comme ni ma koy waxee wax waxaat du bari wax ngir askan gi mën a jariñu rek la yow moom problème bi ñuy dégg ci yow li ngay wax jooni jooni te ñu ci bëri bëri wax boobu tam dafa nekk loo xam ni doomu aadama dafa yàkkamti saa su ne dama koy sax di xaw di sax di xaw a waar ci kaddu naan jooni jooni boo koy wax doomu aadama dafa yàkkamti waaye yow nga ne xam may wax lu wér la ci man euh, ñu ñëw ci wàllu ngóora néew kàttan bi nga xam mu ngi lëmbe jamono. sëñ Mountakha xam-xam lépp am na sans départ ci nit ki dimension bi mu ñëwee boo demee hôpital da nga ko fekk urgent boo demee hôpital da nga ko fekk ñoo xam ne dañuy ñëw toog xaar lépp am na hôpital ni mu amee ci hôpital yi noonu la amee fii am na xam-xam yoo xam ne borom bu ñëwee dana xaar am na xam yoo xam ne nag soxla yoo xam ne borom bu ñëwee jooni jooni la urgent la dañ koy régler léegi mm-hmm. parce que borom loolu rek moo ko mën a saafara. tey imagine toi koo xam ne dafa yor hémorroïde boo xam ne picc ma ngi génn ba mënul toog mënatul dox kooku foog ñu yéen ko andil la ko est ce que kooku bu ñëwee da nga ko jox ay garab yoo xam ne dama naan ko demal nga utiliser ko ay 40 jours ak ay kooku bu ñëwee danga ko defal jooni jooni mu mën a génn doxal boppam kooku dama ci am cas boo xam ne borom bu ñëwee dañ koy jàpp andi ko bu ñëwee ma am la ma ko jox loo xam ne mu jëfandikoo ko fii fi mu toog léegi léegi léegi ma tëral ko ci laal bi mu tëdd même pas 30 minutes mu génn doxal boppam ñibbi noonu amee nag ci ngóor am na koo xam ne ni toll na foo xam ne te mosoon naa la ko sama benn émission mm-hmm. waa ji ma seetaloon ne ko da nga am problème ci problème mu ngóor sa diggante ak sa sa soxna gëmu ko mu toog ay fan affaire bi arrivé ko mm-hmm. mu wooma kooku jóoni doon ba dafa tiit dama ko jox loo xam ne daf ko utiliser léegi léegi léegi guddi gi mu dem ba doyal xapp ba bég mm-hmm. fii rek la am waaw garab bi xapp ba bég moom mu ngi fi. tawakkal la mm. Cheikh Baye Diakha waxtu bi dab nañu waaye ubbeeku kaaraange muy ñaar yoo xamante xëy na dañ koy tënk mu nekk loo xam ne tamit euh, doomu aadama yu ci bëri bëri euh, kuy dox ci kaw jamono bëgg nga ubbeeku waaye tamit kaaraange dafa nekk loo xam ni moment bi surtout moment bi ñu toll euh, ku amul kaaraange moom dina xaw a doy waar lool. kaaraange moom tey bala maa wax ci ubbeeku ci kaaraange lay wax pare dëkk bi nit ñi nañu wuti kaaraange nañu wuti nañu wuti kaaraange parce que yàgg naa ko wax depuis 2019 ba léegi maa ngi wax ci loolu barki alxuraani karim dëkk bi président bi nga xam ne moo nekk ci kaw moo gën a jàpp ne nit ñëpp jàpp ne moo gën a mystique moo gën a ñàkk kaaraange parce que tey da ngay xool liy xew ci réew mi kan la ñeel liy xew ci réew mi yëpp nit ñëpp gis nañ ko kon nit ñi nañu wut kaaraange bu baax maa ngi lay wax loo xam ne nii sañ Mountakha na nga ci bàyyi xel waxoon naa ko nag bu yàgg depuis 2019 laa ko waxoon ci benn émission bu ma doon def noonu naa ne réew mi ñu ngi dem ci euh, at moo xam ne at moomu buñ ci yeggee képp koo xam ne nii ndaw nga depuis sept ans ba 27 ans ku amut kaaraange musiba yu métti dina dal sa kaw 2019 laa ko waxoon waaw buñ ko bu buñ delloo ginnaaw dañ ko gis yaa ngi dégg kun na nit ñi wut kaaraange na nit ñi wut kaaraange. Cheikh Baye euh, waxtu bi daanaka euh, dab nañu ñu ñëw ci wàllu combat bi nga xam ne moom la ñu tëggee Zarko Ada Fass mu nekk combat boo xam ni combat la xëy na dañu naan euh, mag ak ndaw la noo gisee li ni mel ci benn simili daanaka waxtu bi ñu tënk. waaw ku bëgg a mucc si li ma wax ku bëgg mucc si li ma wax nii wool Cheikh Baye incha allah dañ la teg ci condition yoo xam ne bu soob yàlla danga mucc si accident yi da mucc si sëy yi divorce yi da nga mucc si yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye combat boobu daal li ma ci gis man en tant que sportif est-ce que xam nga ne man sportif la damay dugg ci géej gi damay dugg ci géej gi 45 minutes dama koy daw yaa ngi dégg damay def masse arrière damay def euh, njaabu golo damay def soo lépp li mbër yi di def ci géej gi man dama koy def bu ma fa fekkee jàpp ma mbër kon man xam na lu ma am na lu ma xam ci esport tuuti waaye xale bi na bàyyi xel na bàyyi xel parce que Zarko dafay mbër moo xam ne dafa xaw a tardé rek waaye dëgg-dëgg na ku ko xam-xam ne mbëru làmb la ndax am na expérience boo xam ne gars yi dañuy wax ne ku la mag ëpp la ay sagar voilà ku leen maa ngi koy laaj biir loolu waaye leader yi daal nañ bàyyi seen xel seen bopp ñoom itam nañ jug bu baax defaru ñoom seen bopp jërëjëf Cheikh Baye jànq waxtu bi moo ñu dab euh, tàggatoo bi. waa alhamdulilah di sant yàlla di wax na li ñuy wax yëpp waxuñ pour tiital kenn waxuñ pour xoqatal kenn waxuñ pour xëftal kenn waaye dañuy wax nit ñi pour kenn ku nekk nga jug jéem a aar sa bopp kenn ku nekk nga xam yow yaay kan parce que nit ki yàlla wàcceel ko ci kaw suuf pour mu nekk fi di fa wala muy caaxaan mm-hmm. waaye yàlla daf ko jox dignité bu mag. wa laqad karam naa bani aadama wa amal naahum fil barri wal bahri wa a naahum min at-tayyibaati wa faddal naahum ala kathirin man xalaq naa tafdila kon nit dafa foor dafa xam war a xam daraja jooju yàlla jox ko dafa war a xam li tax yàlla mission bi tax yàlla wàcce ko ci kaw suuf wala salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taalaa wa barakaatu santaan nañ ko bu baax a baax a baax itam borom xam-xam ñu xam ko itam ci wàllu ku ne jànqa-jànqa xam nañ ko waaye itam ci wàllum kurus wàllum pajum cosaan ak aada tabarkal Cheikh Baye jànqa borom seetu askan wi ginnaaw ba mu dellusiwaat ci tukki bu gàtt bi mu demoon tabarkal di ziar mbokk yooyu nga xam ne ci diwaanu euh, mën nañ ne bitim réew santaan nañ ko bu baax a baax a baax euh, numéro téléphone baa ngi noonu ci baaru écran bi 77 euh, la 826 33 33 wala beneen numéro bi 78 250